jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen info ci xibaar yi gën a fës ci bis bi moom njiitu réew mi le président Macky Sall gannaaw ba nga xamante ni tasoon na gouvernement bi weesu eh, ajuma bi ñu weesu te gi boo xamante ni am na ay ministre yu bees yoo xamante ni tudd nañ leen ci eh, gannaaw bi nga xamante ni nag lim nañ tur yi moom njiital jëwri ngi di Amadou Ba génnoon na ak askanu Sénégal wax la nga xamante ni loolu la njiitu mi di xaar ci ministre yu bees yi waaye itam mbirum kaaraanga bi nga xamante ni na cee bàyyi xel bu baax baax fii ak élection yi ñu jëm waaye itam ñëwaat na ki ki dund gi seer na ni gouvernement bu bees bi daañ jël ay matukaay bu ko defee Sénégal dund bi gën fee yomb ñu taataan Amadou Ba. bi nag mu bëgg woon ginnaaw assurer coordination gouvernementale bi maanaam fexe nu ñuy liggéeyee ba gouvernement bi mën a booloo doon benn gis-gisam muy vision ñu mën a fexe ba nuñ ko jëmmalee. bu bëggoon nag ci juróom benn weer yi nga xam ne moo ñu dese ci ci yëpp élection yi mu bëggoon ñu jël ñeenti ponk ginnaaw li nga xamante ni moom la gouvernement war a def ñu jéem a baral loolu góorgóorlu loolu bàyyi ci xel bu baax a baax bi ci jiitu mooy gën a sàmm réew mi ndax àdduna fi mu toll dafa xaw a jaxasoo gouvernement bi war na cee bàyyi xel ñu sàmm réew bu baax a baax a baax ñu ngi jëm ci élection fexe ba élection yi yàlla yóbbu ñu ci jàmm ñu def ay élection yu mucc ayib leneen li nga xam ni président sant nañu ko ci wàllu koom-koom ñu fexe ba nga xam ni lii yokk koom-koomu réew mi ñu gën cee taxaw fexe bu njëg yi ñu xeex ak moom ndax adduna bi ni mu bindoo tey njëg yi yëf yi metti na lool rawatina yi nga xam ne dañ koy jënd ci bitim réew nee na na gouvernement bi lañ ca defoon nañ ko dolli gën cee taxaw wàllu xëyu ndaw yi ak la nga xam ne dañoo jëm ci campagne de commercialisation ndax nawet baa ngi bëgg a jeex ñu jublu ci campagne te ñu bari ci ñun di dund ci mbay mi ñu ne xëyu ndaw yi ak campagne agricole bi ñu ci gouvernement bi taxaw li ci war yëpp ñu def ko leneen li nga xam ni président sant na ko gouvernement bi ñu war cee taxaw ci saasa jëm na lépp loo xam ne day tax réew mi am jàmm rawatina këru liggéeyukaay yi ñu jàpp ni jëm ci wàllu njàng mi ci wàllu paj mi ak li nga xam ni gis nañ ko ci wàllu maire yi ñu liggéey ci yi maire yi na ñëw fexe ba jafe-jafe yi fa am gouvernement bi waxtaan ak ñoom ñu jéem ko saafara lépp nag ci kaw yoon ak loo xam ni du am ni lu réew mi benn gàllankoor leneen li nga xam ni gouvernement président sant nañu ko ñu war ko baral mooy xam nga ni président dafa am gis-gis boo xam ni 2014 la ko teg muy li ñuy woowee plan Sénégal émergent ñu xaaj ko ñeenti xaaj juróomi at yu nekk 2014 2018 am nañu ci defoon 2019 2023 mu am xaaj boo xam ne dafa war a jeex nee na le gouvernement bi taxaw ci li nga xam ni moom mooy jëm 2019 2024 2028 ñu ñëw ak nga xamante ni ñoom ñu dund ak jàngoro bi nga xamante ni moom moo di jalis ñoom nag jamono bi yëpp ci njaakaari ak tiis la ñu dëkkee woon ginnaaw paan bi nga xamante ni seen jumtukaay bi ñu leen di fayee doon na paan waaye nag jamono bi jumtukaay yooyu tàmbali waat ba tax loolee itam nekk mbégte ak kontaan ci ñoom waaye ñoom nag leen la ñuy ñaan ñu gën leen wuteel wutal bërëb yoo xamante ni dina neex a jege ndax oto boo jël pour mu yóbbu leen foofu jafe-jafe lay doon ci ñoom te sax fan yi ñu weesu am na koo xamante ni mu ngi doon dund ak feebar bi ñu daal di koy agressé te ñëw bi nga xamante ni ñëw na fa foofu ñu taran kàddu yooyu ah, soulagement la ñu am moom vraiment. yëpp rétablir nañ ko waaw. waaw satisfaction moom c'est évident moom vraiment. imagine malade de dialyse nga xëy ñu ne la non tey est-ce que war a mën a dialyse machine yi lii machine yi laa donc stress boobu noonu rek yokk si sa feebar moom. fa xaw a doy mais sant yàlla. sant yàlla kontaan <laughs> waxtaan free. voilà c'est comme si dañu teggi woon sur le épaules un grand poids daal. nekkul endroit boo xamante ne vraiment pour dialyser dëgg yàlla fii moom dañu fi indi nii rek parce que on n'a pas le choix non seulement accès bi dafa difficile boo fi ñëw problème bu ne ngay am tayee ñi ne la ndox moo ñàkk bu subaa ñi ne la courant moo coupé ak yeneen ak yeneen période hivernage bi des nga gis ay reptiles yoo xamante ne dañuy ñëw dugg ci biir ak ay insectes ak kenn xamul daal te àll la sécurité amu ko jàppale a keroog rek euh, génnee kenn xamul fan la génnee. fii di suñu hangar bi tamit. on est preneur aussi. Mm-hmm. parce am na situation des yooyu dund fii nii des fois da ngay toog nga dialysé ba ci digg bi ñu ne la. ndox jeex na. nga ñëw branché pendant une heure de temps yow doom sa quatre heures yu mot. fii dafa enclavé oto yi. léegi déjà dañoo toj porte bi da ngay wiiri grand tour xam nga. te tax ñëpp xam nañ taximan Sénégal amuñu patience donc yow malade bi da nga naa sonn yooyu yëpp dafa metti bopp ñu def ci seen fulla gaaw. am këyitu juddu jamono bi nekk loo xamante ni jafe na lool fii ci biir réewum Sénégal loolee nag li ko waral moo di gréew bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci maire yi li ko waral nag moo di liggéeykat yi am ak ak yoo xamante ni ñu ngi laaj mbir moom ne tax ba tey jii nii am këyit ngir dem ci école wala ci yeneen mbir yoo xamante ni doomu aadama dina ko soxla ci biir dundam tax na mu nekk lu jafe lool ngeen ki Sénégalais nag daal ci àddu ne gréew yi nii tax na ba seeni mbir yu bëree bëri daal di sooxee jamono bii ñu dimbali ñenn ñi këy. kon grève bi moo a mel nii. waaw grève bi moo waral mu mel ni mu bëri. dañ kaa classé archive quoi. dama daal suba comme yaakaar naa loolu wax sama cas dafa urgent quoi maa waroon dem am ay loolu quoi. yàlla yëguma sax ne grève am ñëw dugg déposé samay papier mu buñ sañoon ñi nga xam ne loolu la ñuy grève ñu fexe satisfaire suñu besoin li nga xam ne mënta ñàkk ñu defal leen grève rek ah déedéet man rek maa fi ne kenn ñëw ah. ça va bien de naissance l'aise parce que ça coïncide juste avec l'ouverture des, des la nga xamante ne dañuy soxla ak accès à tout moment. dama foog ne maire war na mën a réquisitionner benn agent wala ñaar au moins ñu délivrer nit ñi ñi seen e-, e-, extrait yi wala seen euh, euh, et consort dañ ko soxla la mairie fait partie de de l'administration sénégalaise n'est-ce pas sonn nañ trop man extrait laa soxla pour samay doom waaw am naa doom yu war a def concours am naa doom yu war a def euh, comment dirais Koulibantang nag di dëkk boo xamante ni ci biir Sénégal la nekk waaye ñoom nag askan wa fa yeewoo jàpp nañ ni bokkuñu benn yoon ci réewum Sénégal ndax ñoom du yoon bu baax du courant du dara te sax nee nañ njiitu réew mi daal ba mu fa jaaree am na ay infrastructure yoo xamante ni lancé woon nañ ko waaye boobu ba tey gisuñu benn avancement ci yooyee te sax sàccum jur nekk loo xamante ni nemmeeku nañ ko lool ci seen gox googee di ñaan det nguurub Sénégal daal di leen ci wuy si ngir seen jafe daal di saafaraw Koulibantang ak commune Karantaba daanak ñooy commune yi nga xam ni benn goudron benn sentiment centimètre goudron traversé woo xam nga loolu nag dafa nekk jafe bu rëy boo xoolee nit ñi fi dund fi bëri na boo xoolee li ñu war a mun a eh, en tout cas eh, comme activité économique fii dans ce dans cette zone là bëri na mais boo amul tali munoo def lool c'est vrai que aussi ñu ngi remercier le président à travers vraiment lancement bu mu def nii bu mu ñëw fi tournée économique ñëw na ba lancer les travaux de la la rive gauche gis nañ aussi travaux yi ñu ngi commencé

yu mag a mag a ñoo des ça ko ba léegi des na mbokk internetu Thiès Info jërë ngeen jëf lii moo gënoon fës tey ci xibaaru Sénégal di leen ñaan ngeen abonné ak partagé suñu ay élément bu ko defee bis bu ne di am li ni ngeen jëf